na ci par rapport ak mu décision yi nga xam démb jiitu réew mi jël na ko li ci gën a fës euh, bokk na ci euh, fësal yenn ci ay rapport yoo xam ne moom moo génnoon ci juróomi at yu mujj yi waaw xam nga euh, le soleil dafay ñëw ci les grandes décisions du chef de l'État mbirum rapport yi benn pàcc la ci man jàpp naa ni relation boo gis day lalu ci dëgg lalu ci dëgg mooy nañu wax dëgg ba pare lu ñuy continuer ñu def ko mais mën na la lu ci dëgg te jarul nga koy fësal je m'explique dafa am ay priorités yoo xam gouvernement bi euh, le président de la république am na ko xam na ko aussi mu jël premier ministre am ak gouvernement am xam nañu ko mu soññ leen ci tamit priorité yooyu mën nañu ko doxal ci suuf ñu lijjanti lépp lu jëm ci ay rapport ak yooyu parce que rap ce sont des rapports qui existent maanaam du lu loo xamee ni euh, xamuñu ko wala amul ndax li mu wax mooy rapport cour des comptes yeeg ay IGE yu mel noonu xam nga fan yee maa ngi leen di wax ni diggante ñaari ministre bu am passation de service di ngeen gis inspecteur général d'État bu toog seen diggante ñu jox ko mbir yi mu xool lépp ci kanamam lay lay lay tewee ça veut ñoom inspection général d'État lépp lu soxal mbiru ministère yi ci diggante benn ministre buy dugg ak biy génn xam nañ li ci na lépp lañuy jël tënk ko ci ay rapport rapport yooyu ñu ne dañ koy jébbal président la république man jàpp naa ne bu ñu ko fësalee yoon la bu ñu ko fësalul tamit yoon la ñu fësal ko mais bu mu doon loo xamee ni dafay tënk seen liggéey xam nga lan laay bañ li xewoon 2012 xewaat maanaam reddition des comptes Euh, c'est une demande populaire il faut que askan wi ñu wax leen ni xewoon nañu gérer woon ci euh, jamonoy Ablaye Wade président Macky Sall ñëw taxaw jël mbir moomu jël ko teg ko mu doon super priorité ba far gàllankoor yeneen i priorité yi nga xam ni moom moo nekkoon directement prise également parce que dem le président wax na jub jubal jubanti. mais est-ce que li ñuy gis je suis très mhm. na mu na mu doxalee. Mhm. mais fi ma fa ma fa ma amee du question ñàkk d'accord mais xel ñaar. mooy am na yoo xamee ni jarul nga koy nga koy fësal nga koy wax mën ngaa lijjanti ña nga war a jàppalu ñu jàppalu leen. Mhm. ña war a fay ñu fay parce que ci biir reddition des comptes bu ñu naan reddition des comptes am na loo xamee ni mën nañoo jàpp cala ne ni dañ ko dénkoon ministère waaye luubal na cent million ñu ne ko ñaara mën a ne mais transigel ñu bañ laa dugal ci kaso bi jël la tegee la ne duñ la dénk dara nag ci lu jëm ci ay liggéey yooyu waaye xam nañu ni def nga ñëw nga ne ni dëgg la naam def naa la ma def nii la toll léegi naa ko fay dem toogee na duñ la fësal de duñ la tudd waaye rapport xam na ni def nga transiger nga te ku xës ba transiger loolu waa moo ko joxe mën nañ la bañ a dugal ci biir kaso ñu ne la 2012 lan moo amoon may dafa am ay nit ñu ñu ciblé woon ne ni cours de répression de l'enrichissement illicite war na leen a topp ñu jàpp ci ñaar fukki nit ak ñett jëm kaw ci ñaar fukk ak ñett ñi daanaka ñett ñi wala ñaar ñi sax lañu ñu yóbbu ci kanam cours de répression de l'enrichissement illicite ñeneen ñi am na suñu bari ñoo xam ne dañoo transiger moo tax dugguñu ci kaso wala woowuñu leen transiger mooy lan te loolu yoon moo ko mayee léegi nag est-ce que dañuy xoolaat système boobu ne ni léegi amatul transiger wala nangam ak nangam loolu tamit beneen euh, waxtaan na boo xam ni euh, ñi euh, yore nguur gi mën nañ ci waxtaan ñi nga xamee ni ñoom ñooy société civile yàgg nañu taxaw ne ni nañu leeral yenn yi ndax rapport yi nga xamee ni président Macky Sall lu mu waxoon mooy dama cee teg sama conc parce que su ma ko deful dina indi situation fii wala dina indi beneen coow fii d'accord mais sénégalais bi ngi yëkkati dërëmam ak ñaar dërëm dugal ko ci xoolal gestion Covid 19 mais bëgg na xam fan la xaalis bi dugg ndax ci gestion Covid 19 boobu xaalis ba ñu jëloon may lan man jël naa sama benn dix mille francs ne naa ko ci dugal ci sama contribution xalif général des mourides jël ay million ay centaines de millions dugal ko ci ne ni man maa leen jàppale réewum Sénégal pour ñu mën a euh, euh, doxal xeex bi ci li jëm ci wàllu Covid keneen ak keneen dugal ci ku nekk ne ni man naa jënd ci naa jënd ci ay masques joxe ko ñii ne naa jënd ay thermo flash la xaw ma thermo nan lañ koy woyati joxe ko loole yëpp ñi dugal seen xaalis ak ñeneen ñi nga xam ne dugaluñ seen xaalis bu doon seen sago ñu leeral mbir mi pour ñu xam fan la mujjee donc euh, génne rapport IGE luy yoon la. mais man jàpp naa ne buñ koy génne mais nañ ko génne lañ ci war a def nañ ko def te bu mu doon li nga xam ni moom mooy euh, nasaxal le reste du travail le reste du travail mooy lan aller sur les priorités des sénégalais mooy lan fexe ba lu jëm ci wàllu dund gi mbirum mburu mi mbirum euh, euh, location mbirum yeneen ak yeneen ñu fësal ko am na benn aspect ci mesure yi nga xamee ni jël na ko moom président de la république bi nga xam ne d'accord naa ci mooy la gestion de l'eau faw ñu leeral ko ay contrat d'affermage fii ñu ne nii SDE yore fii sa yore fii ba ci les forages ruraux chaque jour nga dégg coow li nga xam ne day am ci biir gox yee goxaan yi ci lu jëm ci wàllu gestion forages ruraux yi mhm. ñu ne non dafa am benn société bu jógee Canada ñii nii la ñuy doxalee lañ doon jaaye ndox mi yokk nañu ko ñaata dëkk ngay dugg ci biir réewum Sénégal ñoo xamee dañ la naan ñun dañoo am problème par rapport ak suñuy forage ndax nañuy gérer forage yi baaxul mbirum yaama neex a ngi ci ak yeneen ak yeneen loolu yëpp nekk na loo xamee ni gis nga bu ñu doon xool président nañ naan ni moom ak euh, premier ministre ak seen gouvernement la ñu yore ci ay priorité mënuñ jël lépp dëxañ ko ci benn benn fan c'est pas possible moo tax j'ai bien aimé euh, kuréel gi mu taxawal tuddee ko BIP euh, bureau d'intelligence et de prospective économique donte ça existait déjà BIP amoon na dafa am yeneen tour parce que euh, bureau prospective économique bi Moubarak loo jiite woon mais BIP la looloo ko tax a jóg euh, bureau organisation et méthode jamonoy yaakaar naa Abdou Diouf la woon xaw ma Senghor ça existait je me rappelle ku si mel ni euh, Abdou Aziz jiite woon na ko. Euh, ak yooyu donc état pour te dire que état daa am continuité di nga changer tour euh, tey projet la ñuy wax dina am kuréel goo xam ne moom mooy saytu projet bi comme ni mu amee kuréel boo xam ne moo doon saytu PSE ak yu ni mel c'est une bone chose nga ñëw indi sa touche bopp même bu dee da ngay changer tour yi indi sa euh, signature bopp mais bu ñu focaliser wu torop si réduction des comptes parce que bu ñu xoolee li xewoon ci ay at ci ginnaaw mën na gàllankoor ñoom seeni priorité yeneen mais comme j'ai di dès le début ànd boo gis na ci na ko dëgg lal tey euh, am na ñaar ñu ñu bokk ak moom pourtant dañ leen épinglé woon ci ay rapport Mimi Touré mm-hmm. Mary Teuw Niane mi nga xam ne moom mooy directeur de cabinet du président de la République mm-hmm. te bañ koy épingler ci mbirum ay ARMP ci mbirum ay rapport ba ci waa SAES yu e nga doon kaas naa ni ministre de l' enseignement supérieur bi ñu jox nii dafa am ay jafe-jafe yoo xam ne war na ko lijjanti ci jamono bi mu nekk recteur UGB xam nga loolu yëpp euh, c' est vrai war nga leeral mais booy leeral fexeel ba ña la jege ña nga ànd ak yow seen loxo set ba nga xamee ni du ñu ñëw ne ni da ngaa làq doom dóor doom parce que am na ñoo xamee ni jege nañ la. wala ñu bokk ci yow qui peut-être des choses à se reprocher Aminata toure si gestion ci. Euh, euh, waaw mais tuumaan nañ ko fii daanaka lu tollook ñaata presque deux milliards yoo xamee ni nee nañu am na ay décaissement yoo xamee ni payeur ba wala ka waroon a jox jox na ko amul signature amul lenn ñu ne non jox nañ ko lu tollook daanaka un milliard ci koppar goo xamee jaarul ci cheque xobet xobet lu ñuy wax. te mënuñu la ne ni fii euh, la jëm wala ci lii lañ koy dugal. Mhm. gis na chasse aux maa ngi koy wax depuis le premier jour le président bu mu dugg ci chasse aux na dem ba leeral lépp je suis très d'accord avec les organes de contrôle te leneen li am mooy les organes de contrôle yooyu muy IGE muy nag muy Cour des comptes xam lu ñu war a def nañ leen doy nañ leen dollil doole. ba nga xamee ni le président n'a pas besoin de demander des rapports de l'IGE wala la la la lu ñu koy weeti les conclusions des rapport ak lan la ñu war a toftal ci rapport yi mais ñu dem ba IGE bu génnee rapport mais automatiquement ipso facto nañu war a topp dañ leen topp te du jar président di ko laajte du jar président di ci teg loxoom wala coñjam du jar keneen ak keneen di ci wax parce que day dem de manière naturelle ñañu war a téye dañ leen téye ñañu war a auditer dañ leen auditer cour des comptes buñ leen joxee doole bi bi ñu war a am même chose OFNAC lan lañ doon wax ne ni war nañ leen jox doole boo xamee ni dañ dem ba du soxla ñuy jaar ci président naan ko dañoo bëgg wala ci procureur wala ci ministre de la justice comme ni ñu gisoon ci yenn rapport yi euh, ne leen cour de comptes def na fi loo xamee ni ci euh, gestion Covid 19 lan lay wax recommandation. ministre de la justice fexeel nañu woo diw procureur faw nga ubbi information judiciaire ci diw mais est-ce que bu ñu ko joxoon moom doole bi ba nga xamee ne moom du du du du laaj ay recommandation mais day enjoindre ne ni procureur lam lay sant mooy ubbil information wala yow juge d'instruction defal nangam ministre de la justice defal nangam pas ñaan la mais defal nangam bu doon am nañ doole boobu le président sera beaucoup plus à l'aise pour dem ci priorité wu sénégalais yi nga xamee ni loolu du doon lu koy parenthèse bu koy bu koy buy pousse peut-être ay priorité wala pousse xelam di dem ci leneen loo xam ni fi ñu toll nii c'est vrai dinañ dinañ ko bàyyi benn temps boo xam ne dina mën a liggéey lu mu war a liggéey mais euh, sénégalais bi dafay xaw a impatient aussi. c'est vrai am nañ patience de mais dina xaw a impatient parce que la muy bëgg mooy fii ak diir bu gàtt ñu sentir ni euh, njëgum xar mi ñu ngi dem tabaski wàññeeku na. ñu sentir ni ngooñ bi wàññeeku na ñu sentir ni location wàññeeku na priorité la ci moom ak gouvernement mais euh, bu ko lëlee perturbé mbirum IGE bu mu ko perturbé euh, ba euh, yàq ay objectif am. d'accord bala ñuy tàmbali waxtaan bi ak monsieur Thion Pape Koura sa sa appréciation par rapport.